wallaay wallaay ku sëpp Seex Moodu Mustafa del lii sa loxo ku sëpp gay na war ma defal lii sa loxo ana sa bay Seex Mustafa Mbakke yedd jubeel taxaw wallaay Seex Mustafa borom Nasrulaay yo no fi lay texe su boobaa candidat de candidature bi ñuy def lu tax ma ne dañ koy bantu fàttaliku leen ne président Macky Sall waxoon na ne 2017 la am élection présidentielle loola taxoon na un certain 25 janvier 2015 ñu defoon une déclaration de candidature on lu ñuy bantu la lu ñuy biral la mel na ci ñi ko fi teewal ci yeneen région yi ak ñi bëggoon teew te mënuñoo teew gën nañu feddil seen kóllëre ci candidat Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma xam ne fas ñu yéene ànd ak kenn jàppale kenn Nasr moo am kan dam passé dem élection en deux ñi ko wax lu ñu narut donte yàlla ay dogal du ñu wax lu ñu gëmut ngir ku dox ba yegg si fii war ngaa weesu fen war ngaa weesu wor war ngaa weesu wax lu narut loolu nekkul ci ñun du ñu kurteeb kenn du ñu coxeur kenn coxeur politique kenn comme ni ko Cheikh Mbacke Cissé di waxee. yàlla lañu gëm Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu yonent xaadim rasul lañu yaakaar ëllëg mu ràmm ñu ko keneen ki nga xam day yaakaar keneen ëllëg mu ràmm ko ndax ràmm lu am la man alladi yashfa'u indahu illa bi izni wax da wax programme ku nekk am nga programme mais man en tant que consultant comme Ibrahima en tant que acteur bu nekk ci secteur privé bi lan la lan la jéemoon a defal Sénégal wala Touba gi mu juddoo benn lii mën ma ko ñàkk a wax tey Touba foofu lay tàmbalee mooy deuxième ville du Sénégal après Dakar Touba Sonatel li muy dugal ci biir réew mi 75 pour cent des appels internationaux.

selon nit ñi fa dëkk maanaam nombre nit ñi fa dëkk day war am nangami hôpitaux wala nangami centre de santé wala nangami case de santé wala nangami forage wala nangami caserne pompier wala nangami police euh, gendarmerie wala nangami voilà nga xam ne tey boo seetee Touba damay jël benn exemple pompier yi dafa nekk su ma jëmul matuñu ñaar fukki nit su ma jëmul ah. de dama maximiser ça. ci dëkkub 2 millions et demi d'habitants ça fait pas sérieux loolu du yoon jaaduwut ma deltu ginnaaw 2015 bi ma defee congrès d'investiture boobu ca jàmmalaay moo wax lan la proposé woon par rapport à Ila Touba ndax dañoo la lawte Ila Touba ne lu baax la ci ñun lu gën la defe ne mujjee ko moom wala can moomu ko ña investir ñoo ko moom ñooy ñëw tabax ku fa ko ne fay xalif général des Mourides des Tidiane des Layène des ku fa ko ne di nga fay kon Touba amu ci dara Mbacké amu ci dara Diourbel amu ci dara léegi nag bañ ko proposé mu waroon toll ci euh, quatre cent dix milliards à l'époque dañu huit cent millions de dollars. 410 milliards de deux fois deux voies sur ma juumul il a Touba bi ba ma ko déggee def en tant que consultant Pour les ay investisseurs négocier ak nous, bañ nangul pour le même montant de 410 milliards nous avons 10 à 15 wagons climatisés yu Sahara. wagon bu ne di cent personnes lu mu tuuti tuuti benn wagon seconde main bu baax lool dina jar à peu près million de dollars kon quatre cent dix milliards mënoon nañ cee tabax autoroute bi ba pare yokk ci saxaar bi loolu laa proposé woon bàyyi naa offre boobu jour pour jour pendant un an investisseurs yi ma déglu dégguma kenn ku jógee fenn ne ma intéressé wu nañ ci yéen nag yéenay def

lu ñu doon laaj ñoom américains yi comme garantie lenn bu dee nañ seen offre ba ne sëriñ bi mi ngi nii lii mooy échéance yi sur vingt ans sur trente ans tey lu mën a doon bu sëriñ ba d'accord lañ koy laaj comme garantie mooy signé ne d'accord loolu kenn mosu ko nangu signature dong lañ doon laaj jiw ñëw taxaw ne ko ah diwkat nee dina ko def ñaari tur yooyu lay suturaal ah sëñ baara mujj ne waaw njeeñ léegi kon américain yi nañ ndox mi wala assainissement bi état bi def leneen li daanaka léegi feeñ hmm? kooku ne ah Abdoulaye Wade kat nee na dina ko def man ne ko état ba mu mën a doon donte Abdoulaye am na Pastef amul sañ-sañu jël montant cinq cent milliards di ko def ci benn dëkk

dégg naa ñuy lam-lamee mbirum fay ndox ci Touba ñaari mbir laa ci wax nañ ko tuddee barkeelu ngir nit ñi miinuñu baatu fay dañ tuddee mbir mi kon barkeelu léegi nag barkeelu gi ci fan ak ñu koy def ñoom ñi utiliser ndox mi nañ barkeelu barkeelu barkeelu gi boo xam ne dañ koy defaat ci kees goo xam ne Touba moo koy moom ay lu étranger moo koy moom donte étranger mooy ñëw def investissement defar ko dina laaj étude de faisabilité xam nañ loolu Nations Unies mën na koo def mën na leen saisir waxoon naa ñoom ba noppi deux ans dina ko jël pour am étude de faisabilité bu bu normal parce que plan directeur bi dafay changé léegi nag bu loolu amee man bis ni ci tey maa ngi wax àdduna si Touba man na ma andi dox mi ngeen mom ko ni ci barkel ci journaliste yi jël leen photo bi wax ni dafa am importance te lii mësta senegal comme li wax nii mësta am Senegal depuis offre la financière et technique société bu états wala Touba lu tax ma dëkkandi Touba parce que Touba li muy soxla ci courant boo boolee Thiès ak Kaolack soxlawu ko te Touba fi ne ngi jë mi ngi jëli courant Thiès ay ndees moo loolu kon ma defe ne bu dee indi naa offre bii offre cinq la ak huit cent mille high voltage maanaam huit cent mille de tension yo xamni valeur bëpp bëpp 750 millions de dollars 750 millions de dollars d'investissement mi ngi nii bu ne état bi ko à travers le Sall wala kenn ku mën a doon nañ ma woo yéen it journaliste ak société civile. du ma kenn kenn wax transparence la bëgg 500 mégawatts à 800 000 lignes de tension bu ñu nangoo. nangoo signé PPA bi ëllëg mu andi mooy coût bi lan mooy coût bi kon lu ñu xam la lu ñu defar la étude technique bi yëpp ngi nii ak étude ak offre bari na ak gaz coow li ci pétrole ak gaz bari dugg leen Google. 2011 laa ko njëkk wax publiquement ci interview bu ma amoon ak Pape Ngagne Ndiaye ci Faram Facce ne leen offshore bi diggante Dakar Casamance am na pétrole ak gaz ne leen onshore loolu léegi feeñ mi ngi Kayar ne leen suñ diggante ak Mauritanie bari na am na pétrole ak gaz. loolu laa waxoon Touba bari na pétrole ak gaz boo ma génnee ñu ne kii nii maanaam wérut ndax ñun gerte dong lañ hmm? la ñu waxoon bu leen ci faram-fàccee en mi mi ngi ci YouTube bi ba tey am na suñu jaar fa gaaw génne ko ngir bañ a xam bañ a am information yi mais mi ngi ko waxoon naa ko en 2011 publiquement 2006 laa ko njëkk a wax Sénégal ak Sierra ak Sao Principe. avons approvisionné approvisionner États-Unis à hauteur de 30 de cent pétrole gaz. Sénégal ça va un principe ak Sierra Leone ça veut dire quoi ça veut dire que le Sénégal donc mën est le Sénégal mën na États-Unis les bu ne fukk c'est la muy Et les États-Unis donc pétrole le muy laaj diggante bateau yeeg oto 20 millions de barils par jour le Sénégal les fi nekk du jëmm ñee ko fi def nag daaw daa di kenn mag ñee ko fi ñaan suñu borom fi du noonu